ngeen di dund màggal gi en temps réel académie minan ngeen di si ond ak tapis rouge si Touba jàkkaarloog ak ancienne banque islamique bi barab bi leen di yembal lépp luy meuble yi seen puce pro mobile plus qu'une puce pro 75 la bul ko jaawale ak it seen frigo Touba 28 fii nag mooy spécialiste des marques lépp lu ngeen bëggati si frigo de qualité ak si leen seen teranga supermarket barab bi moo xéewali mi ngi si Touba jàkkaarloog kër Serigne Modou Bousso Dieng Canal Plus Store Touba ci 28 décodeur à 1000 francs ak sa ak Serigne Mohamed Samb soldaaru Serigne Touba ca xam-xam bu sell ba màggal Touba takkal sa masque ngir roy sëñ bi. président bi ñuy wax modernisation transport mu ne booleen leen jógee Dakar na ci Touba topp ndax sëñ Mountakha am naa yéen lépp lu may liggéey ci état man de bu ma amee fukk juróom-ñaari ñu andi ko ci Touba. moo tax mu ne ñu transport bii ngeen commencé jox naa la ci ndigal lépp loo mën lu ndakaaru am na ca Touba gis boppam moo tax barka dem bi mu joxee kaar yi nga xam ne joxe na ko ci modernisation transport interurbain mu ne ma jox naa la ndigal pour cette place yi nga xam ne dañ koy indi pour defaraat transport urbain nga ubbee ko Touba tax ma ñëwoon tey ànd ak président Idika ak regroupement gare routière yi ak président Sëriñ Sall bu Diourbel pour joxe ci gannaaway ci taxawaayu sëñ Koso oto yooyu nga xam ne ay oto yu baax njëg bi jàppandal tey it du am benn pollution maanaam du am poussière bu bari du am gaz carbonique bu bari du indi benn xat-xat ci dëkk bi monsieur le maire bi sëñ Abdoulaye Ka mu nga fa woon te ndaje ba gis na oto yi mu nekk oto yu baax ñu bëgg ci indi nag yu bari pour que transport Touba nekk transport bu ñu organiser ci ñaan it seen seen ñaan ci sàkku yi ngeen gën ñu cee dimbale ci transporteurs yi ak chauffeurs yi ba li ñu bëgg ci transport mu mën a mel nañ ko bëggee ndax Touba dëkk bu yaatu la Touba dëkk la boo xam ne déplacement yi def fi am solo kon faaw ñu organiser loolu te loolu nag mënuñu koo def te amuñu ci ndigal ngeen jàppale ñu ci donc oto yooyu ñëw nañu indi nañ fi 25 waaye 150 lañ ko war a andi bëgg nañ fi ak décembre ñu dugalaat fi ay doo yu baax waaye tamit nañ fi dugalaat Toyota yi aussi indiwaat ko transport interurbain ak bi ma waxtaanee ak maire bi ñu gis garage bi nee naa ko gaaru Thiel bi Touba war naa am gaaru ceer bu modèle gaaru ceer bu mucc ayib bu yaatu bu fees boo xam ne transport bi daf fii développé wu bu baax a baax comme président joxoon nañu ndigal nag ne nañ moderniser gaaru ceer man dama bëgg première gaaru ceer bi nga xam ne waxtaan naa ci ak AGETIP ba jox ñu maquette bi te mu war a nekk ci lu tolloo cinq hectares danaa ci waxtaan ak sëñ bi waxtaan ci ak sëñ Bas waxtaan ci ak maire ñu mun koo am parce que gare routière warul nekk ci biir dëkk gare routière ak aéroport ak aérogare waruñu nekk ci biir dëkk parce que dañuy xatal dëkk te gis nañu déjà bi ñuy ñëw kaar yi ñu ngi wàcc nit ñu ko sori ñuy dox di ñëw loolu nag bu transport intérieur bi baaxee ñu am gare routière bu nekk à un deux kilomètres defar ko defar bu mucc ayib bu boobaa dem beeg dikk bi dina am jàppandal te xataay bi dinañ ko dinañ ko mën a moytu moo tax gaaru ceer yooyu ñu ci waxtaanee dañu ne dañ koy ñuy njëkk a def biir Touba lañ ko bëgg a def def fi pose première pierre buñ ci amee seen digal dañ fi ñëwaat nag waxtaan ci ak regroupement bi wan la maquette bi ànd fi ak adjectif wan la ànd fi ak ñi koy defar nga xam ne boo leen ko gisee ba jàpp ne lii lu baax la ci dëkk bi leen jox ci dëggal ñu tàmbale liggéey ñun daal li ñuy jot mooy lépp loo xam ne gouvernement mu koy liggéey na ci Touba gis boppam bu baax a baax ndigal nag fekk na ñépp ñëpp nag ñu sawar ci moo tax bu màggal di jot gouvernement bi yitte yëpp mooy xool nan la def ba nekkuwaayu askan bi mën a nekk nekkuwaayu njàppana ci wàllu woowu it indi nañu fi ay masques toll ci vingt cinq mille ak ay gel pour jàppale leen ko ci xew-xew bii nga xam ne sëñ Mountakha joxe na si digg mooy kuy ñëw ak foo mënti dem na nga na def sa masque ndax aaru aar sa bopp aar aar aar askan leneen bi nag mooy dem beeg digg bi aussi wax nañ chauffeur si parce que dañuy defaale campagne aussi sécurité routière wax chauffeur si nañu def ndànk andi nit ñi ci jàmm yóbbuwaat leen ci jàmm ndax fii ñu ñëw si dañoo ñëw si pour jaamu si yàlla pour jaamu yàlla nag da war a waajal sa bopp ci sa mentalité ci sa esprit ci sa yar ci sa teggin sa njub ak jubal ndax nee naa leen fay bañ toogee di waxtaan ca chauffeur yi nee naa leen dëkk bii sëñ Touba ci loolu la ko liggéey kuy dem ci dëkku diine nag diine tax laa jóg jaamu yàlla tax la jóg war nga ci ànd ak dal war nga ci ànd ak dëppoo li yoon santaane li yoon santaane nag mooy def ndànk daw ndànk bañ a yàkkamti bañ a xuloo bañ a xeex bañ a faat benn bakkat te loolu mooy sago sëñ Muntaxa loolu la bëgg ba bëgg nit ñi ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm ñaan na ko li ci des nag ci sunuy loxo la ne sunu taxawaay la nekk te ay nit dong lañ ay jullit lañ ay jaamu yàlla lañ ñaan leen kàddu googu it ngeen ñu ciy dimbale ci wax ak chauffeur si ci wax ak transporteur yi ba wax dëgg yàlla ñu sàmmonte ak code de la route sàmmonte ak sécurité routière bu ñu ko defee rek màggal gi jaar ci jàmm sëñ bi amati ndam ñun ñii nekk ay taalibeem amati ndam yow mii toogal ko fii te lépp loo xam ne nii mooy jëmale màggal gi ci kanam mooy organisation toogal ko fi ndax loolu nga am ci ndam ndax yow sa ndam sunu ndam ñu ngi lay sant nag sunu cantu bopp yoo xam ne nii Omar Youm waxuma ministre waxuma dara Omar Youm citoyen xam ni nga tooge ci biir askan bi ni nga tooge ci biir république bu Sénégal ak li nga fiy liggéey lu ñu xam ak lu ñu xamul moo lay sant di la gërëm ñaan yàlla lii nga yàgg di ko yor nga ci am ndam saa su ndax nga ci nga koy yor muy am nekk ndam waxuma sagu yoonu murit la waaye sagu lislaam la sagu Sénégal yaa ngi koy def ak dal yaa ngi koy def ak ubbeeku yaa ngi koy def ak nite gu mat sëkk ak xam-xam nag lal kon ku bëgg lu baax wanna lay ñaanal yàlla may la wér yàlla yokk sa sutura yàlla yokk sa sago ba nga xam ne liggéey sëñ Touba bii liggéeyal sa maam bu ñuy séddale suba kenn du la ci ëppale ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu lay sant di la gërëm man nekkoon naa directeur cabinet président de la république xam naa na nga taxawee woon ak na nga doon def ak na nga ñuy jàppale ak na nga ñuy dimbale ba bu ñu jëm see Touba xam ni ñu mën a tege suñu tànk ak ni ñu mën a defee ba lépp mën a jaar yoon dëppoog li dëkk bi bëgg mais dëppoo aussi ak li Sénégal bëgg loolu moom man personnellement amal naa la ci cant bu rëy a la gërëm di la sant man ak délégation bi ma àndal yépp nag gouverneur bokk ci directeur des transports routiers bokk ci directeur général CETUD bokk ci suma directeur de cabinet bokk ci ak administration bi nekk ci wépp ci transport yëpp bokk ci ñu ngi lay sant la gërëm di la masawu coono ak yàlla yàlla defal na jàmm ak tawfeex asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw Cheikh Bassirou mooy wax di tontu ministre Amadou Ly meilleur transport mu dimbali mu ngir Sëñ Tuubaa ku nekk salle bi mu dégg di nuyu Serigne Modou Backe Ba doon di suñu doom di ko nuyu bu baax di nuyu ba tey ci wàllu Serigne Bara. ginnaaw bu loolu jàll rek ñuy rafetlu bu baax sa jéego yi nga xam ne ñoo ko fi ñu ngi siyaare ci màggat yi te sa jël jiitu woon rek mooy li nga xam ne àndaay ñu ko dëkk rek ñu ngi baal ko nga xam ne yaa ko transport ñu ngay jiitu woon kon ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha ak ci ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di rafetlu taxawaay bi nga xam ne amoo ko ci dëkk bi loolu loo xam ne itam dëkk la fii nga nekk ndax yàlla defal na leen lu nga doon ndax ku gaaw ci yow rek daa nekk ci lii kat waa bi ci yow loolu ñu wax doo doo mel da ngay ci àgg fu mu loolu rek ci biir dañuy ñaan baax yàlla saxal ci ci mission bi fii nga nekk ba suñu borom rek dajale na kàddu yi nga wax itam ak yéen ñi nga xam li nga xam ne wax ci dëkk yi ci dimbalu sa kilifa président itam dégg nañ ko bu baax ndax dégg nañ li nga wax ci jëf yi nga daal bëri ak li nga war a defaat ak li nga yéene nga def loolu nag pour sëriñ bi faaw ñu rafetlu ndax sëriñ ndax xam ko kenn wut marché bi def ko kon nag ki nga xam ne delloo na dëkk bi cër bi te xam ko war na si la ko dara jot a ko ñëw wala la nga xam ne jiwu sëriñ bi li ma xam ne dama ko seer mooy ak cant ak yow ay ñaanal bu baax yàlla dëgg la mot yi ñu ngi mot waa ñu ngi ñu ngi wàllu loolu lay fekk ñu ñëpp nga xam ne bu dalee ko soxla ci rek tam nekk sa loolu itam li ci gën a sonal bu baax yëpp gën a mën a ñu def ko ba ak suñu soxla yëpp ñu war ñu doon xaar kon daal ñu ngi lay sant bu baax di leen am bu baax war naa li nga xam ne am ngeen ko soog bi suñu borom kàttan la dëgëral ndax li ma seet ci yow rek lu ma xam te lu ma ndax maa ngi fàttali boobu ak siège bi moom sax moo fi rek mooy ñu bëgg a soog pour économie da ngeen ko doon ko def jàppal na lu jëm a jëlee jamono waaye yàlla tuuti la ñu ñëw sañ ma ne ay mën a xam réalité yi nekk Tuuba nga tëb te sàmmonte yi état bi ba nit la yàlla fekkal nit la moo koy def léegi nag yéen ñi yëngu ci dama leen di wax ne Tuuba dafa am réalité bopp ndax Senghor du woon sax jullit li moom tuddee républicain ak ñi di homme d'état nga xam ne xëy na mooy li nga gën a fonk kenn jiitu waaye nag njëkk cër bi Touba am xam na ko xam réalité yi am xam li war a am loolu li ko tam bàyyi ko kon loolu nag képp ku ci tënk xam ko loolu itam day gën a ngir xam ne yaa ngi sàmm de loolu la ñu gis ñu te moom dafa xam ne woo teeku ko ndax sëñ bi sàmm na ko waaye li mu ci wan ñu ciy góorgóorlu ñu ca def suñu kéem kàllaay kéem kàttan yéen a ngi ci jàpp bi ñu ci déglu. ba moo tax bi nga déggee Cheikh Mamadou Mountakha nga sant président ci màgg bi dégg ngeen ko man sama aajo faju ma lool. waaw ñoo koy mën suba la dara. kon nag li tax ma ne ko faj bi mu ci teew mooy bi ñu ko jàppale ci biir te mooy njaboot ay taalibe bi ak li nga xam ne situation bi toll xam na ko waaye lépp ñu ci déggee ko sëriñ mu bàyyi lépp. ñi ngeen di dund màggal gi en temps réel académie minan ngeen di si onde ak tapis rouge si Touba jàkkaarloog ak ancienne banque islamique bi barab bi leen di yembal lépp luy meuble yi seen puce pro mobile plus qu'une puce pro 75 la bul ko jaawale ak it seen frigo Touba 28 fii nag mooy spécialiste des marques lépp lu ngeen bëggati si frigo de qualité ak si leen seen teranga supermarket barab bi moo xewali mi ngi si Touba jàkkaarloog kër Serigne Modou Bousso Dieng Canal Plus Store Touba ci 28 décodeur à 1000 francs ak sa ak Serigne Mohamed Samb soldaru Serigne Touba ca xam-xam bu sell ba màggal Touba takkal sa masque ngir roy sëñ bi